jërë ngeen jëf bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na bàyyi jiili Père Birahim Ndiaye mbokk yi ñu ngeen leen di nuyuwaat bu baax a baax a baax fii ñu leen daan nuyoo di am kontante ak mbégte di ànd ak yéen ci wasaare làmb euh, gis nañ yéene géeg bëgg-bëgg bi euh, Père maa lay nuyu bu baax di la ziar. waaw jërëjëf di wax auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahiim hmm. rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli hmm. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh maa ngi nuyu mbokki internet yi nga xam ne ñu ngi seetaan wasaare lamb di ko safoo site mm-hmm. eh, may ñaan ñu gën a continuer ceete yu abonné ci site bi nag. wax dëgg yàlla parce que loolu ñu encouragé lool. mu mm-hmm, mm-hmm. eh, ci gis loo contesté nga wax ñu ko. ah ñu gën a defaraat suñu toogaay. parce que loolu tamit lu di kontaan lool nag di suwaat taxaw ak sama doom sama jarbaat. mooy Abdou Khadir. Eh, di kontaan ci Adama di ko ci Abdou. ak ah, Kaggu ak Kaggu ak. Abdou Abdou Basiru Basiru Diouf di sama doom mm. sama lef di ko nuyu di yëpp di nuyu waa bi yëpp xale yi góor jigéen mag ndaw maa ngi nuyu ñëpp daal mm. eh, di ñaan sama kàddu yàlla yàlla def mu fekk leen ci jàmm amiin yaa rabbi wasalaam salaam kon nag moom bismillah eh, jërëjëf mbokk kon dégg ngeen di ko Père waxee eh, bu leen fàtte di aimer bu leen fàtte abonné bu leen fàtte partager parce que wolof daf ne doole jën ndox doolay waykat public waaye doolay wasaare làmb yéen la suñu mbokk internet yi moo tax dee leen abone bu baax a baax a baax ci site bi eh, wasaare làmb mu ngi ñëw ak yeneen mu ngi ñëw ak lu bees tàq xam ngeen ni père bi daay fu mu nekk rek dina neex dina yëngu yéen ma gën a xam eh, père tey ma bëggoon waxtaanee ci ci tuuti rek ci première partie bi mm. ñu ñëw ci yenn mbër yi nga xamante ni tey eh, mbër buy jóg mbooloo mu bari da koy toog mm. day dem ci làmb am ci kase boo xamante ni macha allah Euh, daanaka dund euh, ba génn àdduna te yor liquide boobu. Hmm. te teewul mu ngi dund mu ngi am lépp loo xamante ne ko gis yàlla suñu borom kii kat yàlla suturaal na ko. Hmm. wala li mu bëgg mu ngi am mbër nag da ngay gis mbër mu am quarante millions. Hmm. wala cinquante millions wala cent cinquante millions. te carrière am après day mujjee dalu góose da ngay dem ba mujj gi boo bu la rombee sax da nga naan est-ce kii moo doon jóg mbooloo mu bari di ko toog. lu mel noonu ci mbër lan moo koy lan moo koy xaj. waaw jërëjëf Djily maa ngi kontaan trop ci question bi nga ma posé muy question boo xam ne bii euh, war naa ko maîtriser parce que dund naa ko gis naa ñu ko dund. Mm-hmm. te xam am na lu ma ci xam. Mm-hmm. mooy gis nga àddina loo gis fondation ba day dëgër. Mm-hmm. gis nga fondation bâtiment bi ñu taxaw nii. soo gisee ñu mën cee teg premier étage deuxième étage ba kaw. doo fekk fondation ba dëgër. Ah, gis nga bu fondation bi dëgërul. loo def day daanu. moo tax gis nga boo nekkee ndaw. yàlla defal la sutura. yi may la kàttan jox la doole kàttan hmm. eh, nga xam ne dangaa nekk xale gis ñoo xam ne ñii ñu ngi ci mbedd mi ngay daje ñoom loolu su doole yow ngay jariñu sa mën a jariñu sa doole te yow ñoom moom ñoom mënuñoo jariñu seen doole hmm. toujours moo xam ne danga naan kii lu tax bëri jiwul hmm. wala kii di bu woon dina am dara waaw nga gis kooku bëriwul yow si yàlla baaxe la nga yàlla jox la kàttan ngay jariñu sa doole nga gis ku ëpp doole wala ku toll yow doole te mun a jariñu ci dooleem kon xam nga am na loolu yàlla baaxe neel benn waaw ñaareel bi mooy yàlla ku mu def mbooloo topp ci ginnaaw rek am na lu mu def ci sa ginnaaw am na lu mu def ci parce que du ñëpp lañ mboolooy topp mbooloo mm. mu topp sa ginnaaw saa yoo jógee ñëpp jóg saa yoo jógee yow foo ñu ne xàll leen ko kooku du ñëpp ko am jigéen jur na doom mm. benn doom ñaar doom ñetti doom fukki doom waaye kenn ko cay doom mm. bu dama ñëw rek ci par exemple son excellence mooy Macky Sall mi tey suñu président am na ñu bokkal ndey ah. am na ñu mbokkal ndey ak baay mm-hmm. dégg nga est-ce que li am ñooñu am nañ ko kon nga xam ne yàlla dafay maye dafa am loo xam ne doomu aadama bi yàlla moo la koy may su la ko yàlla mayee nag yow yaa koy sàmm nag mm-hmm. nan nga koy sàmme fondation bi ni muy dëgëre mooy nga am ngërëmal waajur mm-hmm. benn ñaareel ba nga bañ di wor ñetteel ba nga fonk ay àndandoo parce que yéen ñi tey bu fekkee ne ku ci xewle ma ñëw teewal la mate ko ëllëg si biir bu ma xewle yéen ñëpp da ngeen ko tànkam lawul kenn waaye bu fekkee ne yow da am sa teraanga am sa succès bi ngay amul dara dégg nga ñu ñëw di la jàppale nga dem ba am sa succès taxaw nga commencé jàpp ñëpp million bari na lépp ñëw na ñel daan débli ci ndékki ñel daan débli ci reer gisatoo kenn ah, ñëw ñëpp tey ji nga du mooy leen fàtte leen loolu bis bu demee doo leen gis parce que ngor gaak kóllëre nga waroon sàmm sàmmoo ko hmm. sàmmoo ngor sàmmoo kóllëre nooy def waaw parce que nit ki day sàmm kóllëre mhm. sàmm ngor mhm. sàmm kóllëre mhm. ki lay teral dee ko teral sàmm baay dafa ma daan wax ne ma ku ma defal juróom ma defal la fukk su ma la mën a defal juróom la mën a fukk it naa fexe ba delloo la sa juróom loolu mooy ngor loolu mooy kóllëre loolu kooku àndal tey ji da ngeen di ànd carrière bi dina jeex nga dese ni nga amoon waaye bu fekkee ne léegi yow talaata benn boor rek lay jógee jóge ba ca beneen boor ba bu yàggee bu carrière bi jeexee rek jeex ba moo tax ñu bari làmb day jeex lépp ñu ñàkk yépp Hmm. yaan pourtant kii di ko mbooloo takkuwaat parce que da nga ko def paat tuba yu paate wele. Hmm. xam nga yu paate wele mooy lan. très bien képp ci moom maanaam hmm. talaataam ci moom dong la yem. amul gauche amul droite yemul kenn la moom ci moom boppam ko ci keneen kooku loolu bu jeexee rek jeex na tàkk na waaye talaanga bu ci bu demee gauche dem droite dem kanam dem ginnaaw. bis boo yëngoo ñëpp taxaw la. ah paate wele de ah. tax loo am da nga ciy bokk nit. teraanga bu ñu see da koy bokk ñi nga daan àndal ñëpp. Mm-hmm. kenn ku ne lekk ci wërsëgam xëy na daañu daanu mënta daje suuf nag. Mm-hmm. waaye la la nga ca foroko néew kenn ku ci nekk tamit la la ci àqam nga jox ko jox. Mm-hmm. yëg ko faale ko boo amee bis nga ñëw taxaw ca. soo amee teraanga defal ko. loolu kooku du la fàtte ba keroog muy waaw loolu tax mbër ba ba bëri. dese nit yi démbam mais raar na nag ci ak jamono ji nga ki nga xam ne moom nga àndal xale ngeen ànd mag ngeen ànd ci succès ànd ci kopp ànd ci teraanga lépp. ba làmb jeex ngeen ko ndiri ànd jafe la am na nag waaye bareetul jafe na de waaw waaw euh, boo koy compter ci làmb de boo ne ñaar doona ñett waaw waaw bari na ñoo xamante ni tey hmm. ki leen jàppale defal leen lépp bu ñu demee ba nekk euh, champion ci làmb dañuy am ay jeex a jaaxa wala ñu am ay réeroo du jeex ci ay mbër yoo xamante ni ki leen yoroon seen kilifa la euh, hmm. jàppale leen ci làmb hmm. ñu bëgg a bàyyi sax mu indiwaat leen te teewul dem nañ ba seen diggante neexaatul mais père ma jaaxal mooy. li koy waral foofu ma tontu la foofu. Hmm. mooy yow damay ñëw am problème. Hmm. nga di ma dimbali ci ay cinq mille franc dix mille franc. Hmm. tey ma xëy ma dimbali ci ay vingt cinq mille. Ah, ma ne ah kii daal te pas la peine ma jël benn jour ko àggu. dégg nga mu jëm ko. waaw bi ma amee bis bi ma amee Bachir mu am sama ay cinq cent mille nu may def. su ma àndoon ak sama ngolo ko fàtte naa yow mi nga xam ne yaa ma doon dimbali ci. cinq mille ay cinq mille ah. te parce que booba te pourtant booba nag loolu arrangé la mm-hmm. sami yooyu mm-hmm. di ci reer di ci rek moom daan dimbali mm-hmm. léegi nag jekk nga nag fàtte nga loolu gis nga ñeneen yu lépp taraanga loolu nag mooy musiba mi bu taraanga wuy see tey fàtteel fa nga teg sa tànk bëgg si ci yii moo sax sa nitu démb fexeel ba bu ko fàtte bu ko ci ànd ak bu neexee ànd leen bu naqari ànd loolu mooy yow ndeysaan loolu mooy yoon. Euh, père man li ma jaaxal mooy euh, làmb. Mhm. Euh, cachet bi malgré am na ci ñoo xamante ne mhm. seen cachet bi làmb demeewul noonu. parce que am na ci mbër yu fayee ko cinquante millions. am na ñu fayee ko quatre vingt millions. ñii fayee ko nañ cent ñii dix. ñii cinq am na ñoo xam ne sax deux millions la ñuy fayee ko. waaw te père ñii deux millions da xool des fois seen xaalis. Mhm. da ngay gis ci liñ koy dugal. ay xale lañ mais dañuy jàpp tôt ou tard làmb mën nañ maa bàyyi. mën naa bañ a yegg ci cinquante millions wala cent millions mais mm-hmm. deux millions yi ñu am mm-hmm. moo xam mu néew moo xam mu bari dinañ ci jéem a wut kër buñ dugal seen ñaari waajur mm-hmm. dinañ ci jéem a wut oto dinañ jéem a xool yeneen bunt yoo xamante ne làmb mën nañ ko ubbi te gis nañ fi bëri yoo xamante ni laal nañ quinze millions laal nañ vingt million cinquante millions te ba tey xaalis boobu munoo gis fan la dugg ñoom lan la dañoo amul sectionnaire bu leen gérer seen xaalis wala ñoom ñoo jékki-jékki yor seen xaalis di ko di ko pasar pasare waaw loolu neex naa tontu jëjëy hmm. mooy bari la barke lee ko gën hmm. bari le hmm. barkeel lee ko gën man ngaa gis koo xam yor na ne gaañ te barkeelul nga gis ko yor tuuti mu barkeel lool lan mooy différence bar barkeel ak bari le voilà barkeel mooy mooy fondation ba day baax moo doon àq du ca topp alal bu ci àq toppul day barkeel mais bu ci àq tokkee toppee rek du bar du barkeel alal su ko àq te ki àq àq ko fondation hmm. àq ko yenu ba mu taxaw yàgg-yàgg da koy mbas mu daanu mooy alal ju barkeel hmm. mais alal joo xam ne ñu fondation ba dafa baax moo ne barkeel nga am sa ngërëmal waajur ah, ñi ngay àndal amee loo ci kenn àq hmm. alal jooju day barkeel seet ko ñi fi alal borom alal yi fi nekkoon ti ñu leen soow ñi nga xam ne ñëpp dañoo génn àddina tey seen alal gën a dox ala ja daa barkeel mm-hmm. waaye ñi nga xam ne tey seen alal barkeel lu woon ci ay xëy na ay tappale ci ay organisation ay ay njublo lañ ko amoon mm-hmm. bi ñu demee rek alal jëpp seey mm-hmm. moo tax may la bari la barkeeloo ko looloo tax man nga ne loolu gàññe te barkeelu doo du dem du mujj fenn waaye li nga am mu ne tuuti mu barkeel bi gis nga bool ba xam nga kañ la ngay gën a xam ne sa wàll ji barkeel la mm. bis boo génnee àddina sax yàlla na yeex ci nga xam ne li nga liggéeyoon barkeel la parce que ci amin wu leew nga ko amoon mooy lekk lu leew rek am solo booy mm. yàlla nañu yàlla dimbali man ak yéen ak yéen ñi ñuy seetaan yàlla lekk lu leew waaw dem na ba ci liggéey li ñuy liggéey nii mm. nga xam dañuy liggéey ñu dañu fay buñ ci joxee dafay suñu àq na mu waree loo ci am mu barkeel mm-hmm. waaye boo ko deful sa àll àq ni nga ko war a defee tamit dégg nga def ko ci ay tappale nga ngi loo ci for mën ngaa génn fii benn waaye tafu ko am Souleymane Diop tafu ko wala keneen am Moussa Diop tafu ko. Hmm. wala ñu am am Fallou Diop dajeeg yow jël sa poos wala mu rot wala mu dugg ci njuxum doo ci am dara. loolu moo tax liggéey mu sellal rek mu am solo leew rek am solo. am na solo. waaw euh, ngeen dégg li nga xamante ne Père tey indi na ko ci première partie bi mooy hmm. barile barkele ko gën. Hmm. Euh, am na solo Père ñuy jaajëfalaat bu baax a baax a baax. la ñu bëggoon wax nag euh, ci làmb ji yëpp daanaka saa su ne bu ñuy tourné ci émission dinañ leen defal première partie waxtaan ci benn thème. boo xamante ne dina jariñ mbëru làmb yi ndax père euh, Balla Gaye de damaa toog ak moom mu ne ma maa ngi seetaan émission bi mm-hmm. nice na rafet na yaag per te ñu mel ni père Birahim Ndiaye ci làmb mm-hmm. dañ leen war di indi saa su ne ñuy wax ñuy waxtaan xale yi mm-hmm. leen gën a ñaax di leen gën a jàppale euh, ñu ko ciy jaajëfal bu baax a baax a baax ci acte bu rafet boobu nga xamante ne def na ko moom Balla Gaye de père ma lay jaajëfal waaw man it may gërëm Birame Ndaw Ndoye fa France mu ngi waaw Biram Ndaw Ndoy ak soxnaam Seynabou Ndoy sa xarit la waaw sama xarit la sama collègue ñoo fon defandoo lépp bëgg làmb mm. maanaam audio yi ma yónnee nii ci sama téléphone mm. di apprécier suñu taxawaay ak suñu analyse kontaan ci lool nag Biram ñu ngi lay félicité nee buy wax coppem yëpp jigéen génne ñëpp lañ si ñooy seetaan sa wasaare waaw maa nekk war ko ci gërëm di ko ci sant nag mm. ah ñu ne tamit lu mu gën a yaatu abonnement yi lu mu gën a bari mu gën ñoo neex rek mooy li nga rek Euh, am na noo ko waxee sànq. dooley jën ndox dooley jën ndox. moom xam nga yow moom dooley waykat public. waaw xam nga yow comme maa ngi. dooley wasaare làmb ñi ñi seen. yaay wasaare làmb yaay sama doom waaye yow tamit léegi nga puus ma yokk ma xol. kon yàlla yàlla yàggal ànd bi. amiin yàlla jërë ngeen jëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. ñëwal ci. ndaanaan laa ñaari yoon. kon boo jaar booba laa mëne. boo jaar fafa laa mëne. damaa mën ci bii boor mën ca bee boor mën ci yii boor ak ci yële Fatou Ndiaye nu roowu maag ñoom a rëy ma juub waa na roy ma saay maa ko baaxi jeeg ñii ma